gannaaw bu ñu euh, président wooloo ñu dem Dakar waxtaan ak moom par téléphone on a pas eu la parce qu'il était occupé mu yebal ñu dem waxtaan ak Mimi Touré Aminata Aminata Touré pour que effectivement ko si élection yi ñëw ndax ma majorité au niveau de l'Assemblée nationale euh, wax bi yaatu na gudd na mais lu si gàtt daal moo di ñu jàppal leen ñu am majorité au niveau de l'Assemblée nationale euh, ñu déglu ko waxtaan ak moom wax ci gannaaw loolu wax ko aussi nous, de loolu parce que aussi euh, bu opposition amé majorité à l'Assemblée nationale on risque être dans une situation où nga président day proposé lois loi euh, opposition bi rejeté et finalement dans cette situation là qu'est-ce qu'on va faire pendant cinq ans nous avons pensé que donc pendant cinq ans nous président la République autant donner les moyens de travailler de liguer, bu seen nguur jeexee benn assemblée

xam lu ñu bëgg jàppale si lu ñu bëgg ñu continuer liggéey pendant cinq ans am nañu ay projet yu bari bëgguñu projet yi naka saa yi dañu bëgg projet yi ñu amoon yëpp ñu continuer di leen dérouler et ça ñàkk ànd ak pouvoir bi mun na am peut-être que même bu lépp yàqool mun na tardal lenn yi moo tax ñu xalaat dem fekk ji euh, pouvoir bi euh, essayer jox ko doole au niveau de l'Assemblée nationale mais lu tax nag ñu bañ existe en tant que structure aussi nous allons continuer à exister en tant qu'alliés et là yeneen localité jotee aussi étape ça nous sommes dans la phase élection locale euh, élection législative élection euh, locale y a aussi une phase passe passé beneen phase élection présidentielle phase bu nous, nous mais il faut donner la majorité absolue au président euh, Diomaye